salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëfe sëriñ Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen siyaare bu baax di ñaan yàlla def jàmm a xéwal ak taw tawféex te wéral cër yi te barke liggéey bi barke borom Touba. Ah, tey jii nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen lenn ci li nga xamante ni lu sonal askan bi la muy ay douleur musculaire ak ay douleur articulaire ndax nit ñi dañuy faral di am ay méttit méttit yi moom macha allah dafa bari façon méttit yi nit ñi di am muy problème mu yàq problème mu sidit méttit yi daal dafa bari lépp luy douleur rek incha allahu rabbi danañ ci waxtaanee. ci lépp li nga xamante ne laaj nañu ko rek incha allahu rabbi danañ ko tontu suñu kéemtalaay kattan. waaw xeetu douleur yi am type de douleur yi moom bari na wax dëgg yàlla métti bari na trop te métti nag wax dëgg yàlla ndax am ñoo xam te ne ni moom comme ni ma ko sànq dañu am ay douleur articulaire ak musculaire maanaam dañu am problème mu nerf sciatique ñenn ñi am problème mu arthrose ñi ci des am problème mu lombalgique am problème mu hernie discale lombaire. bëri na ay xeetu métti yi am ci diggante yàq ak sidit ñoo xamante ni seen yaram daal mooy métti ñenn ñi bopp bi lay tàmbalee yàqu bopp sax day métti am ñoo xamante ni dañu am loos buy métti am ñu am mbagg am ñu am digg buy métti am ñu am cuisse ak hanche ñenn ñi nag seen genou gauche wala genou droite bi day métti lool ñu ci des day laal cheville bi wala dëgguwaay bi ci boppam baaraam yi day métti nit yàlla moo ko bind mais or yooyu yëpp ay cër la ay organes la yi nga xamante ni dafa yenn saa yi day am ay métit yi nga xamante ni daf ciy faral di juddu wala mu ci nekk te bu boobaa dinañ ci mën a jàpp bu baax incha allah. waaw différence bi am ci diggante douleur articulaire ak musculaire articulaire moom boo leen ko déggee rek mooy articulation yi mooy am problème articulation yi loolu dafa jëm ci wàllu sidit yi ak fi nga xamante ni fa la yi nekk muy diggante ñaari yax diggante pooj bi ak tibia bi genou bi foofu loolu douleur articulaire la. waaw douleur musculaire nag boo leen ko déggee li ci gën a bëri ñi ni ñu amee mooy mbagg buy metti surtout côté épaule yi maanaam euh, soox bi yax bi yàpp bi mooy metti yàpp mooy metti yenn yi mettitu yax la yenn yi mettitu la yenn yi mettitu muscle bi ci boppam articulation yi day am métit muscle yi itam day am métit ndax sunu mbokk footballeur yi ñi ci gën a bëri dañu am problème mu buy am problème am ñoo xam te ni ñoom dañuy am ay problème mu cuisse day am ay métit ay douleurs yu tar yi faral di am ci seen cuisse yi wala ci épaule bi wala ci ndigu ginnaaw gi te loolu yëpp en en diagnostic dinañu mën a gis ba détecter fan la maal bi nekk ñu mën la ci jàppale ba loolu tàggoo ak yow incha allah. waaw douleur sciatique nag loolee boo leen ko seetee comme ni ma koy sànq muy nerf sciatique nerf sciatique moom nee naa leen ci loos lay tàmbalee di métti jàpp colonne vertébrale bi di wàcc jàpp hanche yi ñëw ci genou yi ak suufu tànk yi. moom loolu boo leen ko déggee muy feebaru nerf sciatique mooy sirite sirite yi sirite bi ak muscle bi ñoom ñaar bu ñu àndee mooy nerf sciatique ci kàttan yàlla loolu nag moom douleur yu metti la nag dina tere ni ki taxaw dina tere nit ki tëdd dina tere nit ki liggéey dina tere nit ki dox moom daal posture boo nekkee day day day waar am na si jigéen ñi xamante ni sax daf leen di euh, bu ñu amee borom kër dootuñu sax mën a ànd ak moom ci say ñenn góor ñi def leen di téye ba seen doole seen ngóora seen kàttanu sëy seen ay érection dootuñu am benn érection dootuñu am sidit yu dëgër duñu am envie ñu bëgg sax ànd ak seen bu dee xale bu toll ci wàllu liggéey it même chose nekk xale war a liggéey waaye yàlla dogal li nga war a liggéey lépp pour nga jóg dem defi ko sax problème bi boo tëddee guddi bo yeewo fajar pour nga jóg wacc sa kaw laal bi di dis gan gan gan gan tank naaj bi demul ba tang rek do meuna a lolu baxu sax ci xalé waxuma laak ci mak wa yi meuna indi douleur musculaire nak li ci gëna fess mom moom avc bokku na ci nga am avc manam ñi xamantene dañu am accident vasculaire cérébral ñooñu en général dañuy am feebaru yah ak métit bu tar nga xamantene lolu avc bi moom mo koy jur moom moy dem ba indi la nerf sciatique wala mu indi la problème hernie discale lombaire wala mu indi la ay problème rhumatisme wala ay problème arthrose loolu moom bëri na ci ñi nga xamante ni AVC fës na ci bëri na nag yi ko mën indi comme hypertension artérielle nga am problème mu tension wala nga am problème mu diabète itim bokk na feebar yi nga xamante ni fës na lool ci en général boo ko amee pour nga am ay douleur musculaire wala articulaire dafay nekk lu la yàpp wala mu yomb lool ci yow douleur musculaire yi ni ñuy manifesté woo mooy ay douleur rek douleur yu yu atroce sax yu atroce lool ay douleur yu metti metti metti metti pour certaines ñenn ñi nee naa la tànk bi lay tàmbale ci baaraam yi ñenn ñi ci cheville bi ñenn ci genou yi ñu ci des hanche ñenn ñi ci ndigg bi mbagg colonne vertébrale bi surtout daf koy touché ak surtout wàllu loos yi bopp bi metti bu la waaw yooyu yëpp dafa nekk yoo xam te ne ay ay ay de manifestation la doo mën a dox doo mën a toog doo mën a tëdd macha allah daal waaw dafa lay sonal lool dafa lay jox sax ay insomnie ñenn ñi mu dem ba def leen ay perte de poids. waaw l' apparition des douleurs moom li koy gën a favoriser mooy stress da koy gën a génne ñaareelu mbir ba euh, fatiguement da koy gën a génne am ay problème da koy gën a génne am ay feebar yu mel ne que tension diabète ndoxum siti yooyu dafay nekk li nga xamante ni soo ko amee feebar yooyu daf lay daf koy daf koy gën a gaaw a génne ci yow maanaam nit ko am yooyu il faut faire très attention. yooyu buwul dalee nit rek douleur yooyu dafay gaaw a génn ci yow muy douleur musculaire ak douleur articulaire yax buy metti sit buy metti muscle buy metti maanaam métti daal ci sa yaram dafay bare trop li mu lay faral di dal. waaw les personnes à risque moom Cheikh Babacar ñi ngi ci gën a gis ñi nga xam te ne ñoom les personnes ñoom ñooy les personnes à mooy ñi nga xamante ne dañuy faral di liggéey lu diis ñiy faral di yëkkati lu du lourd maanaam ñiy wàcce ciment ñiy wàcce ay di liggéey ci ay bateau ñi nga xam te ne dañu liggéey ta liggéeyu taxaw ak bu xam te ne dafa laaj physique ak ñi xam te ne dañuy def ay sport de combat ñuy def karaté ñuy def judo ñoom ñooy les personnes à risque ak ñi xamante ni euh, seen toog dafa bari seen taxawaay dafa yàgg si seen liggéey am ñi ni itam du ñu manque de sport physique ñi nga ni seen organisme tàmmaluñu di ko def di ko yëngal ñooñu dafay nekk ñi nga xamante ni mooy les personnes à risque surtout ñi nga xamante ni dañu am obésité am yaram de trop ñi nga xamante am yaram de trop sen yaram dafa am dépôt de graisse ak dépôt de cholestérol vraiment ce sont des vraiment des personnes à risque ñi nga traitement naturel bi ñun am ci traitement naturel ci suñu cabinet ci suñu pharmacie univerbio amna ay pommades pour douleur yi amna yu koy biir moy yo a naan. ay ñaan amna am c'est un peu mystique Nous may la ay ñaan pour walu traitement mystique ci pour pour pour yàlla musal ci seytaane ngelawu seytaane ñëpp xam nañu ni day metti yaram. am na nag yeneen traitement naturel yi xamante ni ay nit a koy def mais ñun duñ ko def muy ventouse muy nga tegal nit ki ventouse. ventouse nag moom bokk na ci li nga xamante ni moom képp ku ko mën di def baax na trop pour wàllu métit ak ngelaw a douleur waaye malheureusement ñun moom temps bi moo ñu dul may pour ñu mën a exercer ce genre de truc. bëri na sax ñu ñu laaj est-ce que dañuy defaale massage et tout par cabinet loolu dafa nekk lu compliqué trop ñun ndax jot gi duñ ko may loolu tax. ñun loolu dañ koy conseiller nit ñi ñu koy def rek di def ventouse di def massage yooyu yëpp dañ koy conseiller nit waaye malheureusement ñun moom ci suñu cabinet duñu mën a pratiquer loolu waaw pour conclure méttitu ndigg méttitu yàq wax dëgg yàlla bëri na ay xeetu traitement yi ñu ci am bëri na ay xeetu garab yi ñu ci am ça dépend ci nit ki fi muy métti ci moom ak ni mu koy yëgee ak yan jafe-jafe la ci am yan difficulté la ci am bu ñu defee consultation bi poser diagnostic bi dinañu mën a xam yan traitement adéquat lañ ko mën a jox ci alxuraan ci ay fas ci mocc ci jox koy garab jox koy pomade may koy garab lu koy faj biir lu koy faj biti en interne externe tout du ñu bàyyi dara kon képp ki nga xamante ni yaa ngi yëg arthrose sa yaram yëg problème mu nerf sciatique sa yaram yëg problème mu hernie discale lombaire sa yaram yëg problème mu lépp luy problème mu métit rek lombalgique et tout rhumatisme bépp xeetu métit bi nga xamante ne nit ki mi ngi koy yëg ci yaramam bu ñëwee géejawaay arrêt Doubalès kër Serigne Bara dañ ko ci jàppale incha allah na woote ci numéro bi dina jot secrétaire yi ay xale yu ñu yar lañu ay secrétaires yi nga xam te ni formé nañ leen bu baax ci accueil ak euh, surtout les relations humaines xam ni ñuy waxee ak doomu aadama mën leen toppatoo bu baax wax leen nan lañ leen di orienté ak nan lañ leen mën jàppale ba ngeen mën def seen consultation 169 45 45 wala ngeen woote ci numéro yi 77 160 93 93 Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine baarafal Fall incha allahu rabbi muy képp ku am métit sa wayjur am ko te muy souffrir wala sa mbokk am ko wala sa soxna am ko wala sa borom kër am ko ci kàttanu yàlla ak baaxama yërmandeem incha allahu rabbi danañ ko ci jàppale ba loolu wér jërë ngeen jëf